kii bët nañu yal na yàlla def ko muy mboolu lislaam yal na ko yàlla teral yal na yàlla bàyyi ko fi ba mag ko ca la ay way juróom am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ñu ngi nuyu ñi ñu fi fekk ñëpp kilifa yi ñu fekk ñu nuyu kii nga xam ne mooy sunu gone bi Samba Ndiaye doon wax léegi Samba Ndiaye na yàlla guddal fa daw. day faat dugg si na xale bu yar waa ngoom. incha allah ñu sant mbokki Bambilor mbokki borom yi mbokki diine yi ñoom ñëpp ñu ngi fi. yal na yàlla defal leen jàmm defal nu jàmm. tànk yi ñuy ñëwee ak yi ñuy delloo yëpp yal na ko yàlla def yiw yow li Fatou moo rek moo dàq lépp Seydou moom mooy sa moom Seydou maay Seydou Seydou man yal na yàlla def jàmm day Fatou bég naa kontaan naa daam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات nan ko may ma toog di jox ko mu toog nga wax ak moom waxi gor wallahi faar day mel ni moo la amee man bi muy jógee États-Unis yàggul dara li ma indi dama mujj ruus tey parfum bi ma parfum woon nii léegi bi may ñëw faar moo ma jox faar moo ma jox te nag gis nga àdduna gis nga képp ku nekkal nit ñi ku nekkal nit ñi soo amee noonu na jàpp ne soccoom dina damm parce que du rey wax ju am importance la ça veut boo amee leen nit ñi njariñ soo nekkee ak noonu bu dee socc pour ree socc ba dana damm waaye du rek la yor ay milliard du rek mais faatu sol benn xeetu cëriñ boo xam ne bi jàkkaarloog borom mu leer ne kii contact mënatul dox euh, amul lenn lu war a dox diggante kaay mu yóbbu la ci sàngam parce que di nga am jàmm bëriwut ñu koy wax te nag daf ci amul lu doy waar loo xam ne léeg-léeg doomu aadama yi moo nekk yow sa digganteeg nit lan la moom mii daam mi am na ci lu leen xam na ne aw ma jot toog distance bi ma toog tey surtout samedi ma war a dem fay ay wéen toog distance bi ma toog kon ku ma ko jaral moo tax ma def ko te pourtant woo na ma wax na ma ko depuis ma xëy def ko mu nekk sama yitte ma dagg sama yitte ndax lan tudd am bariwul sax lu muy am mën naa ne at bi benn yoon laa ko ci def te ñi ma dëkkal ñoo koy tax muy def kon ku sori la ci man te aussi nit ñi nañu delloowaat seen bopp ci yàlla surtout loolu ñu delloowaat seen bopp ci yàlla caaxaan bi bari na fo bi bari na ku ci nekk yaa ngi yaakaar ne ca la nga nekk yow yaa ko mënal sa bopp te nag tant que ñu ngi nekk foofu dañu nekk ay égoïsme diggante ñun ak suñu borom waaw yéen sa salaam daana toog ba ci yàgg mu ne bilaal mu ne ko ah, mu ne ko raaxini bi salaam Euh, euh, Bilal jógal nga noppal ñu ci julli. la yeneen sept jours boo ko trois nekk vingt un mu ne nag mbir mi nag na foo xam ne dootu la jàtt waa teggi nañ la ko kon ni ñuy yàkkamtee ci bu imaam tuddee ñu ne non rey leen xar mi rey leen mi ki may sept jours may na la ay minutes yoo rey xar may sept jours may na la ay minutes wala une heure de temps boo xamante ne ci ngay rey xar ñu joxe tur nga toog une heure de temps rey duñ joxal diw kàddu parce que ñii ñooy amee ci ci ci jotaay yi nekk imaam bi moo tax am na ci lu bëri loo xamante ne mënu ci yaatu ñu ngi nangu ñaan yal na yàlla dëgëral faatu wax dëgg na yàlla ba am sëti sëti sëti sëti sët incha allah xam ne naw nañ ko ci wàllu jaamu yàlla parce que buy seetlu dama naan nit war na dugg mu wan la naka ngay muuroo booy jullit sa borom fii Sénégal bëriwut jigéen ñu koy def yal nañu yàlla. yàlla yàlla defal ko cet te barkeel ak njabootam. ndax ak njaboot tamit ma nga leen koy xamal jubóo nañ lool di ko dalee ci biraam yi ba ci seex xeexu xeexuñu boo duggee fii ci kër gi boo nee an seen yaay ñu ne mu ci kaw tëjuñu faat ndaw be seen i soxna yi fi nekk baax bëgg seen bëgg seen jëkkër bëgg seen goro man day buy fi dëkkee ba léegi nii naa xam ci ñoom te dama toog ñaari fan te dugg ma ci kër gi te man dama yanaan lu ma xam laay wax lu ma xamul lu ma ko waaye biraam yi ak seex mee toog ñu baax lañ de ñoom ñoom ignoruñ kenn jaamu yàlla liggéey li ñu xam ak fonk seen waajur yi demuñu fenn te lool ñi dëkk fii ci koñ bi di ma dégg xam ne li may wax dëgg kon yàlla yàlla barke leen yàlla sàmm leen ñu dund ba seen waajur yi mu fekk lu ci yéen. Mbaye Sylla Baye Mbaye Sylla moom de duñ ko fàtte ndax jëwriñ ko sëñ Tuubaa gi nekk fii Baye Mbaye Sylla ko sëñ sëñ mu taxaa jox muy jëwriñ bi yàlla yàlla barke te sàmm sunu Baye Mbaye day wax jëwriñ léegi nag dañuy jox sëñ Seydou ay kàddu mu yëkkati ko soxna Ndeye Fatou ñu ngi lay nuyu yàgg sa borom kër bu baax bi wax naa ko léegi avant ngay ñëw ngeen ne démb doyoon na sëkk teraanga yéen fi jàkkaarloog jaamu yàlla yi di leen ko jox boole lekk ak naan lu mot a def tey dem def ngeen ko dem te ñun nag duñ nettali waaye luñ dëgg lay siiw loolu mooy suñu problème waaye yàlla yàlla barkee na te bàyyi la ak sa borom kër waaye sa borom kër ay mbokkam yëpp ñëw na loolu maam mi loolu géej mu dëkk waa ay waajum cosaanoo fa seen imam yaa ngi nii seen seen seen seen seen mbokk yi yëpp ngi nii kenn kenn desul kon yàlla yàlla sàmm la te barkeel la te guddal sa fan te bàyyi la ak sa borom kër ci dara jëyeen ji Seydou Mbodj dinañ jox kàddu gi gisee li tax ma jël kàddu wallahi asim daanaka bi ma yegsee daanaka fajar jot na. ma jóge dina bàyyi waaye maa ngi nuyu kilifa yi fi nekk yépp di nuyu imam moom mi nga xam ne moo tudd xale bi bis bi ñun naan kër soxna Fatou bi lépp lu fi xew ñun fu mu ñu mën a fekk rek dinañ ñëw ndax ju waaye ndax nag doomam ju baax ji dinay day faatu nee naa ko lenn rek a tax ma bëgg la waaye lenn a tax ma fonk la lenn a tax ma jàpp la bëgg gi nga bëgg sa yaay waaye tamit nga wëlbati ko waat waa kër sëñ Bamba nga leen di woo di leen teral waa kër Sidi El Hadji Malick waa kër bàyyi Laay kër gi ñii ñëpp mi nan sa yaay doon asport doon nit bu baax wallahi asim bi may ñëw daanaka dañuy julli fajar ma jóge Medina Baye si Serigne Moustapha Papa Dam Serigne Aliou Touré nii ma nekkoon sa gàmm ba waaye kër Fadlo bi lépp lu fi xew man peex damay ñëw kër bi baax lool nit nag lu mu baax baax baax ay bokkam rek sama baay bii toog benn waxam rek si lay tibbee li mu seere si bokk gi seere ko si sa borom kër gi nit amul lu ëpp ay bokkam ku la tàggale say bokk gis ko ànd ak i bokkam te bu nuy waxtaan ni la may ma waaye sa yaay dafa doon jàmbaari Seexul Xadim waaye bëgg sëñ Baara lool nee naa lu ne mën nga koo dégg lu ne mën nga koo gis waaye Arafat Lawbe ku ko bañ a dégg génn dëkk bi ndax sëñ Baara moo ko faggal Baara Aminata Lo Moustapha Aminata Lo Aminata xarit maam yaaba xarit maam njaga mi si jum mataan mi si kokki aali mi si ndaam siraxu joku mbaag gayndeel siraxu joku mbaag yàlla siraxu joku mbaag fallo mor ñaan ma sama gàtt ndaak nday faatu mamadou sëri maam coro ngóoru kumba jeg cheikh coro balla coro xëri mbàkke kumba tay ba ñu joxante njaay mbàkke moom cheikh antaak afi antaak faati antaak mbàkke anta ñu jox sa jéy maam Cheikh Massamba sa jéy jox faati sa jéy maam si Thierno ma sëñ Bamba yónne woon ndax sa yaay doon murit doon taalibe bëgg sëriñ baala borom kàddu gi nga téye sa yaay fonk sa yaay jege sa yaay waaye nag sa yaay jëlaat cër bépp nday faatu delloo la ko nga doon xale ba am jom am ngor am fulla téel sa yaay nag boppam dambay mii ak jànkatu xasida yi ak tàggatu yenent bi yëpp ba ci ngaal mii si saal bii la ñuy waxtaanee bu ñu ñëwee di ngeen ñu jox ñu lekk ba suur naan ba mandi bu ñu dem ngeen yëkkati addi ju bari jox ñu yàlla yàlla def jàmm maa ngi nuyu Pape Somde sama doom ñu bokk askanu peex Farlobé moom dafa doon nit koo xam ne bu xewlee ñëpp ay ñëw ndax jukkoom nit dina doon loo xam ne dootul xaalis nit doon dina doon loo xam ne dootul jox nit xam nga lan lay jàppe nit ak téye faatu dañoo téye bëgguñu yërëm ñu dañu kon maa ngi ñaan doom ji ñu muur doom ji ñu muur tudd ko yàlla na ñu dund yàlla na ñu dund boo koy muur mu sëy imaam waa kër Sidi El Hadji Malick maa ngi leen di nuyu di la siyaar di la ndokkeel yàlla yàlla def jàmm nday faatu maa ngi lay siyaar ki ni bëgg a kàddu gi nag day sama xarit doon kenn si man nee naa ki ñuy jox kàddu gi Alaaji Seydou si mu baax mii nee naa jëmm ji dina def